Toubacouta ziar ziar dooloo ziar ñu gis tey nga ñëw wàcc lutte avec frappe da naka nga ñëwee waaw comme ni may ñëwee rek si lutte avec frappe sooguma bëre tey lutte avec frappe bii mooy sama neuvième combat victoire bii mooy neuvième victoire incha rabbi Toubacouta du ko mooy neuvième xam nga nit moom sax booy dem xare da ngay gëm ni da ngay gagné te yàlla mooy maye yàlla yàgg na maa may ndam yàlla na ma ko may si barke Seydina tey ni leen xamee noonu nga da nga ñëw bëre lu simple wala tey da ngay xeex bëre. ndox du bàyyi yoonam man lu ma am bëre ak xeex moo ma ko gënal. waaw li nga wax. billaay du yoon sax xoolal li ma indi supporter xoola xoola xoola dama bëgg arbitre bi gaaw suuf la ma daan ko dem ñu bi bi loolu da nga yàqam. barke Alxuraan damaa yàqam fi comme d'habitude ni ma ko doon defee si lambu simple yëpp ñëw rek bëre daan. kon ci kanam incha

honoré ni la CNG mention spéciale waaye arbitre yi tamit mention spéciale ndax combat yi fi jaaragul lépp rafet na ñaari mbër yi taxaw nag ñooy war a bëre combat bii aywa maam ñaari kon drapeau la Assane Ndiaye nee na drapeau la ah drapeau bi xaaral drapeau bi wàcc kon drapeau bi la ñëw. mooy président mouvement jëm kanam mu ngi ànd ak doomu Badara Kébé ba tey bokk na ci délégation bi Mor Dieng waaye ba léegi bokk na ci délégation bi. madame Diatta moom it ba tey mu ngi ci délégation bi Djibi Ba moom it mu ngi Major Mbaye Bour Gueweul ñëw na ci délégation bi El Hadji Malick waaye ñu am fayda lam jeunesse lan boo xam te si ni macha allah dañu engagé bëgg seen réew gëm seen bopp merci boobu ndaw la waaye ku dëkku dara doo ko dégg ku ngeen fi ngeen dëkk tekk ci dëkk bi te mii mooy borom bàccit bi saa tuba mii mooy borom gudd mu ngi doon di rek bàcce kon xaar Alexandre Bousse saa tuba kan la àndal Bousse la àndal Bousse mi xam ne mu ngi caméra mooy baayam mi ngi doon di rek ci kaw tribune officielle ba fekk fa jigéen ju baax ci xam ne wàllu lamb da ci dox muy Nafi Ndiaye ñu koy rafetlu Habib baa ngi wax ak ñaari mbër yi Toubacouta Malem Niani Toubacouta à droite Malem Niani à gauche Malem Niani Toubacouta huitième combat de la soirée Toubacouta door nañu ko eh Malem Niani door na Toubacouta na door ko Toubacouta eh, Toubacouta jël na ko te Malem Niani dina daanu Malem Niani dina doog Toubacouta jàppante nanu <laughs> Malem Niani affaire la de ma ngay rasu Malem Niani Toubacouta Malem Niani Toubacouta jël na tànk ba Malem ñaani Toubacouta Toubacouta lu mu def nii Toubacouta Malem Niani ñoo ngay xeex dina ko dóor dina ko dóor dóoraat na ko Malem Niani Toubacouta Malem Niani Toubacouta Malam ñaani jël na ko lu mu koy def Malam ñaani Toubacouta ak Malam ñaani xeex nañu léegi xeex bu neex bëre nañu ñoom ñaar Toubacouta Malam ñaani Toubacouta Malem Niani Toubacouta dóor yi muy dóor baax na braqué na ko moo ngi koy braqué da koo a jeexal Toubacouta Toubacouta ndànk Toubacouta ndànk Toubacouta Malem Niani ñoo ngay bëree waaw waaw ko Malem Niani takk na Toubacouta da koy daan Toubacouta daan na Malem Niani Toubacouta daan na Malem Niani waaw waaw xoloma supporter ya supporter yaa ngi noonu xoolal Gris 2 Gris 2 moom Kaanu Demba guy maa ni combat bi lii foo la lii ay combat préliminaire la rek. lii du dara. non mais espoir la foo moom munul ñàkk fa. dañ doon def ay carton ba ñu ñuy dóor. mais mobilisation bi lan la li nga andi dafa bëri. parce que grand combat laa bëri. man mbaru mbaru mbaru sama mag a nii Gris 2. lépp lu def si lamb dinaa ko topp. lan nga bëree lan ñëw bëre wan ni foofu góor la. sport la dañuy ñëw bëre jaayante doole xeex bu ko jëree xeex ñu xeexal. bu jëree bëre ñu bëre loolu kasa la ni nga ko daane ñëwal ci ni nga ko daane non dama ko bàyyi mu takk ma kott ko tëdd ak moom dama ko bu doole xale laa nga wér ko poids bi waaw léegi léegi nag fan nga jëm ah léegi fan nga jëm kan nga soxla man fils fils de Balla laa bëgg ñu jox fils de Balla ban fils de Balla men xool nga li nga wax bu baax mais bii mooy sama neuf combat ayca kii de moo ko ko dee lan moo tax nga dee ko fils de Balla yaa ko ko dee nga ko dee ko ñoom ñëpp yow xanaa gaayinu gaayinu fils de Balla di ñëw ba xale yi li mu jël ci ay drapeau ak fi muy bëre ñooñu bëriwuñ ko man mii sax wax ak ñoom bëriwu bëriwuma ko kon ñooñu ñooy ay adversaire am dañ koo xamul nag moo tax kanam raw